dafa yëful de te programme am xat na lool waaye nee dafa am teraanga jun séq joo xam ni bu la ko nit defalee faw nga sant ko moom nee da day wax sax si jëmmi sëñ asma am sa ji ni sëñ am sa dañoo xamante waaye dafa gis si moom ne dañoo dem ba si biir yàlla suñu borom ni ko kii jàppantee ak moom nee dafa am mbir mu muy wax rek nee dégg na léegi wa maa shahid naa illaa bi maa alim naa loolu la sëñ am sa wax moo tax nee lii muy wax nee daa bëgg sañ am sa mii nekk seede bi nee na mu xamal ko mbooloo mi fi teew tamit ndax nee na jamono day neexu la waxe waaye nee naam séq nañ teraanga baax na oyof na ibbil na ko boppam nee def koy recevoir ba n'importe quelle heure nee na boole ko ak njabootu boppam waaye nee li tax nag moo ni yàlla moo ñu boole dafa am mbir mu xew nee dafa mos a moom Lamine bi waajuram wu góor làqoo nee daf koo bàyyil benn kaamil nee ni ko dee ko jàng lu mu bon bon bon ñaari fan del jàng lu mu bon bon ñaari aaya di ñaan soxla di ma ñaanal nee na mu fonk kaamil ba lool de bëgg ko lool nee buy tukki sax yóbbaale ko nee na yàlla natt ko mu dem Afrique du Sud bi ma ñibbisi. nee bi mu ñibbisi. mu fàtte kaamil bi ci hôtel bi mu daloon. nee na mu fàtte kaamil bi ci hôtel bi mu daloon. bi ma duggee avion bi. nee na bi mu jëlee vol bi. ba escale ci yoon bi. ba escale yoon bi. dem ci kaamil. nee na xelam dem si kaamil boobu bi ko waajuram joxoon. tumuranke nag dal na. nee na tumuranke dal ko lool. ndax kaamil naam. ndax nee na kaamil naam. boo génnee jënd ko. boo génnee man koo wecceeku. waaye bu la sa waajur jox. waaye nee bu la sa waajur jox. feebar bu ko si feebar boo xam ne moo ko yóbbu barsax. kaamil yëpp benn la de. kaamil yëpp benn la de. waaye kaamil boobu di nga ko xoolee beneen bët boo dul xoolee beneen kaamil. waaye nee na kaamil boobu di ko xoolee beneen bët boo xool beneen kaamil. mbir mi ma ñibbisi. nee na mbir mi dal ko mu ñibbisi. nee na xolam naqari si torop. nee na ba mu feebar ko. nee na mu am gàcce lool mënu ko nettali kenn. nee ñu toog si suba ga. sëñ am sa mii woolu ko. te nee na li muy wax nag. sëriñ bu ne. nee sëriñ bu seet ne. maanaam sëriñ bi bu mu seet ne. nee na sëriñ bi bu mu seet ne. Lamine ci biir mbooloo mi lay waxee. nee si biir mi lay waxee. naa ko suturaal. ndax. ndax. kuy wax lu dul kuy wax lu dul dëgg. ku ne mën naa màndu ci yow. ku ne mën naa màndu si yow. waaye kenn amul sañ-sañu seede waaye nee na kenn amul sañ-sañu seede ko de. si suba sa sëñ am sa woolu nee na si suba ga sëñ am sa tu wooye ko. demul nee na demul. yëf yi jàpp ma. nee na yëf yi jàpp ko. naqar bi tiis si man trop. naqar bi tiis si moom lool. ba ñetteeli fan bi. nee na ba ñetteeli fan ba. keroog xaw na maa gëdd sax. nee na keroog sëñ bi xaw na koo gëdd sax. dama ñëwal. ni ko ñëwal. dafa am loo war a jël. dafa am loo war a jël. boo paree nekk sa yitte. boo paree nekkat sa bi ma demee. nee na bi mu demee. doyewu ma dara. doyewu ko dara. doyewu leneen. doyewu ko leneen. lu yëkkati benn kaamil. lu yëkkati benn kaamil. ni ko kii laal doon jox ma sa bëri sëñ Mbàkke ak moo tax nag waaye nee na moo tax nag kuréer le kaamil kuréer le kaamil wërwoo ko wërwoo ko yëgle woo ko yëgle woo ko dajeeg ku la ni kaamil a ngii nee na ngaa dalal sa xel ni bëreeroon feeñ na feeñ na de nee loolu nag moo tax seen digganteem ak sëriñ am sa nee mu gën koo jàpp nee ndax moom mii jàppul ni moom day moo xamanteeg moom nee na jàppul ni sëñ Amsa moo xamanteeg moom nee dafa jàpp ni yàlla moo dëgëral seen diggante nee dafa jàpp ni sax waajuram wu góor ma ma joxoon kaamil ba moo booleeg sëriñ Amsa nee na waxu si xam-xam de waaye nee dafa jàpp ni histoire moo tëddee noonu nee dalal xel mu nettali ko nee lool nag moo tax sañ am sa nag digganteem ak moom mu gën koo jàpp nee na keroog bi mu ko yégal bis bii dafa ni ko boo ma ko waxul woon sax bu ma ko yégee dinaa ñëw nee loolu moo tax sëriñ bi ah, ah, nee na Lamine nee na bëggul gën laa téye waaye nee na lim la waxoon seen diggante yéen ñaar. nee na jàpp na la de te dootu la bàyyi mukk nee na jàpp na la si jàpp jaayante nee na ñaari jullit yi soppante kese nag nee na xoolul lenn xoolul ni politicien la nee daf laa soppal boppam te yàlla kese tax nee na moon naa bañ a waxagum de waaye nee na comme da ngay dem te mbooloo seede la ne na faaw mu waxaat wax jii nee na nga xam ne la mu waxoon démb ak barki démb day moo ne si moom mbooloo mi seede loolu asalaamualeykum wa rahmatullah